bisimilah. dal ak jàmm ñu dikk ak yéen ci li gën a fës l'observateur yéenikaay la koy dooree mi xëy dikkaat ci li nga xam te moo ñeel wàllum reddition des comptes ak les détails de l'audition de l'homme d'affaires Abdoulaye Sylla face à face am ak waa dikk ñu ne nag loolee daal di ñuy durer lu fukki waxtu la nga xam te la ñu ko doon laaj nag mu ngi doon jëm ci wàllum lingot d'or yoo xam te moom jàpp nañ ni génn woon na ko ci biir réew mi te bees xaymaa njëgg ay milliards yu bëree bëri la l'avion bi nga xam te ni moo transporté lingot d'or yi ak date de référence boobu loolu lépp l'observateur yéenikaay xëy na ko niki tey ji version homme d'affaires bi waaye tamit daal dinañ koy bàyyi convoqué waat ko ngir mu dellu si waat l'observateur yéeni kaay nañu laat jóobi tamit daal dinañ koy convoqué niki gaaw gi nga xam te moom la ñu nekk ngir moom tamit déglu ko ci yeneen i mbir yoo xam te jàpp nañ ne laale na ci journal bi dikkaat na ci ci nu mu gën a yaatoo ci lu ñeel wàllum politique yi tamit ak législatif yi leadership ak avenir ñu nekk le PDS le tournant décisif ci yi lay jongante bi nga xam te moom di PDS war lépp loo xam te ñeel na avenir am yëral journal bi di l'observateur en relief quotidien nañu compagnie aérienne africaine une rentabilité famélique journal bi xëy na def jàngat ci li nga xam te moo ñeel yenn compagnie aérienne yi ci biir réewum Sénégal mu ne Saint-Louis renforcement de capacité des communautés la transparence budgétaire et la redevabilité au menu journal bi def na ci jàngat bu yaatu yaatu enquête quotidien nañu nag dossier tatouage et piercing une génération grave li nga xam te ni daanaka ndaw ñu bëree bëri dañu koy def jëmo jële bënn seen i seen i cër dugal ci ay jaaro waaye tamit yaram maanaam daal di koy tatoué loolee bokk na ci li xam jàpp nañ ne tendance la jamono jile te ndaw ñu bëri di ko def Dakar Express nañu tamit la reddition des comptes la traque passe en mode turbo Lat Diop convoqué à la DIC ce samedi waaye tamit d'autres dossiers confiés à la section de recherche en cours de finalisation bëri na ci ay dossiers yoo xam te ni jox nañ ko way takk der yi fi mu toll nii ngir nag ñu daal di déglu seeni borom daanaka lépp yemb na jamono jile ngir nag ñu tàmbali li nga xam

ki tey ji ci gaaw gi la war a dem wuy ji l'enquêtekat yi ñu ne nag lu ñeel wàllum reddition des comptes boobee daal moom Lat Diop nag moom moo nar a ubbi mbir yi journal bi tamit xëy na wax ñoo mu ne nouvelle nuit de Jérôme Bandiaky passé entre la main de la DIC mu ne ce que l'on lancé xam te li nga xam te mooy guddi googee nga xam te ni Jérôme Bandiaky daal dina koy fanaan foofee nga xam te mu di ci dikk ci loxoy takk dari journal bi dikkaat a kilo d'or sorti du Sénégal par jet privé luy tolloog ñaari ko ci ni moo di Abdoulaye Sylla na ci mbir moomu leen ndax am na benn manifeste de vol ak benn xam te la ko daal di def te l'enquête kat yi ñu ngi ak moom gannaaw ba nga xam bàyyi nañu ko woowaat ko ci wàllum audition dañu naka sib soné ni moom mooy ki nga xam te moom moo transporté boobule or waaye tamit moom moo ko génn ci biir réewum Sénégal Sénégal te lu ni mel nag def ci ànd ak ki nga xam te moo fi nekkoon jiitu réew di président Macky Sall libération yéeni kaay xëy na dikkaat ci mbir moomale waaye tamit mu ne ki nga xam te moom moo di Lat Diop daal dinañ koy convoqué moom nag ñaari la ñu ko bëgg a dégloo waaye tamit beneen ba nga xam te moom mooy ñaareelu dossier bi nga xam te tax nañu woo ko moom laat Diop mooy nag doxalin nga xam te ni amaloon na ko ci biir réewum Sénégal ak lañu ñu ko dénkoon ci nguuru Macky Sall tribune yéeni kaay moom itamit xëy wax

ki nga xam te moo di général Martin Faye daal mu ngay daal di dem ñi nga xam te ñoom ñoo di ay élément dinañ amal ay tukki ndemeeku jamono ji l'informateur yéeni moom nag la ñu a tàmbali ci li xam moom moo ci mbeddi Sénégal yi ndax fi mu toll nii jëwriñ ji lu jëm ci wàllum biir réew wàllum tolérance daal bëggatu ci dara la mu bëgg nag mooy lépp jub xocc ci mbedd waaye tamit lépp leer naa ñi képp ko xam te yaa ngi ciy def naka sudul noonu ñu daal jàmm

nekk wàllum représentativité bokk na yi tamit ci la nga xam te journal bi xëy na fësal ko tey mu ne li nga xam te moo war a nekk ay gàllankooru ñi nga xam te ñoo di ku jëkk politique yi journal bi daal di fësal ci xët bu njëkk nataalu Amadou Ba Khalifa Ababacar Sall Anta Babacar Ngom ak Aly Ngouille Ndiaye ana moo war a nekk chance ñoo ñi nga xam ñoom ñoo nekk ci ku dëkk politique yi journal bi dikkaat na ci antenne quotidien moom xëy na dikkaat ci li nga xam te moo ñal wàllum reddition des comptes Lat Diop ouvre le bal ala dikk ni moom moo nar a tàmbali mbir moomule moom Lat Diop ndax nag wóolu nañ ko fa nga xam te ni moom moo di ca dikka danañu ko laaj ci ay dossiers yoo xam te ñeel na wàllum lonage ak na nga xam noonu la fa nekkoon wax ci wàllum concertation autour du processus pour les législatives mu ne la main au parti ki nga xam te di nguur gi daal fi mu toll nii mu ngay tàllal loxo parti politique yi ndax nag jëwriñ joor lu jëm ci wàllum biir réew mi dana dalal ni ki gaaw gi nga xam te moom la ñu nekk parti politique yi ak ñi nga xam te ñoom ñëpp war nañu dugal seen yokk ci li nga xam te moo ñeel wàllum élection législative yooyu yooyu ngir déglu leen seen xalaat waaye tamit waxtaan ak ñoom ci mbir mu ni mel l'éveil quotidien moom xëy wax ci lu jëm ci wàllu mbéy mi mu ne rendement agricole Mabouba Diagne encourage les pratiques améliorées ñi nga xam te ñoom ñoo ci yëngatu nag xam te moo di jëriñ ci yor lu jëm ci wàllu mbéy mi mu ngi leen di gën a ñaax ngir nag ñu gën a ànd ak positif ci li nga xam te moom moo di mbéy waaye tamit jëmtuwaay yu yees yi nga xam te ñu ngi koy jëfandikoo

wàllum reddition de compte le quotidien yéenikaay nañu mode d'emploi les liens entre l'OFNAC et le parquet financier Lat Diop à la DIC aujourd'hui li nga xam te mooy li dox ci diggante OFNAC ak parquet financier bi ak moom mara tarambali mbir moomu lee tey journal bi noonee la ko xam ne le Dakar waay yéenikaay koy wax ci li nga xam te monière cherté du total des empreintes mu ne hausse de zéro prix du crédit bancaire au Sénégal la nga xamante moom ngay fay boo libee ci banque yi daal di nay yokk journal bi xëy na def ci ab jàngat yaatu yaatu le public yéenekaay nañu nag le plan Orsec de Serigne Mountakha Mbacké ki nga xam moo di xalif général des Mourides fi mu toll nii nag moom bëgg naa nga xam moo di ca dëkk bu sell ba di Touba Mbacké nga xam te daanaka fan yi nii ndox mi daf ko nangoo ndax nag dafa taw taw yu métti ak ay loraange nga xam ndox ma def na ko fa journal bi dikkaat na ci ci na mu gën a yaatu l'évidence quotidien xëy moom itamit dikkaat ci li nga danañu fas yéene tàmbali déglu ñi xam te ni bokkoon nañ ci nguurug Macky ñu dénkoon leen mbir te ñu jàpp ne am na doxalin gu sellul goo xam ni am na ci yooyu l'info quotidien nañu nag dynamique unitaire en perspective des législatives l'opposition reprend du poil de la bête nga xam ñoom ñoo di ku jëkk gi fi mu tolli tàmbali nañu li nga xam moom moo di liggéey mi ngir xool na nga xam te noonee la ci lu ñeel wàllum jongante yi nga ku jëkk politique gi jamono ji lee ngir jàmmaarloo ak nguur gi rawatina ak waa Pastef ngir naka naka la ñuy def ba daal di leen ëpp ay député foofee nga xam moom moo di ca assemblée nationale ba réew mi quotidien moom moo ñu wax ci li nga xam te moo ñeel wàllum dépôt des listes candidatures pour les législatives mu ne l'opposition dix jours chrono fukki fan rek lii di ku jëkk politique gi am ngir nag daal di defar ay liste ngir déposé ko Abdoulaye Mbaye dénonce les magouilles de Pastef la xam te moom moo nekk tey ji doxalinu Pastef ci élection yooyu le moom la Abdoulaye Mbaye di kaay moom itamit xëy def ab enquête ci li nga xam te moo implantation de pharmacie et vente de médicaments à Touba ay pharmacie ak jaayum garab moo xam jaarul yoon ndax nag fa nga xam fa la ñu a jaar jaaruñu fa le mode d'emploi des officiers ñi nga xam ñoom ñooy defal lu mel mu ne nag ñii di pharmaciens yi daanaka ñoom ñooy faat li nga xam te liggéeyum pharmacie ci biir réewum Sénégal trois cent dépôts recensés quatre-vingts dëkk boobee di Touba te nag téeméer boo ca jël juróom-ñett fukk yëpp amuñu sañ-sañu jaay li nga xam te ni moom moo di garab yooyu le le défaut de conservation et le danger pour la santé li nga xam te ni moo ñeel na nga xam te noonu la ñuy dencee garab yi loolee dara jaaru ci yoon te mu lu ni mën na indi loraange ci wér gi yaramu nit ñi marché occas les moodu moodu et les bawal bawal la nga xam te ni moom moo nekk seen taxawaay ci mbir moomu le soleil yéenikaay ñëw wax ci lu jëm ci wàllum napp gi ak la nga xam te moom la ñuy jëfandikoo mbaal mi nga xam te moom la ñu duppee monofilament mu ne nag les